bala Gaye fi ni bu doon bëtiri man la vidde na Balla Gaye nga Balla Gaye première bi muy bëree ak daam kanji juróom la ndongo la décédé estat Amadou estat ah, Amadou Bari grand combat bi laay gañ woon ak dem si àll si MC Lida yàlla na ko yàlla xaraajal na sama kanam la juróom laa njëkk a bëree jàpp daam kanji duma ko du muy métti daan ko daam kanji tey seen senior moo ko indiwoon dem si àll si ak Baboy ñu sol ay tëré militaire may leen booy bi mën na doon roi Ibrahima Mbaye bu faas na may wax xamoo làmb jour guddi googu la ndongo loo gaañu stade Amadou Barry promoteur baa nga dëkkoon stade stade amitié si miir bi la la yoroon magasin waaye xam nga dafa am réalité boo xam ne dañ ma ko jàngal ci sport man masse musculaire laa xam waa géej waaye yi ko doon yuuxoo topp ko yuuxu naan Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye Balla Gaye ñoo rey Balla Gaye ñoo ko teg parce que dix jours cinquante kilo yàlla bindul fenn àdduna nit ku mel ci àdduna fukki fan cinquante kilos nga bëre Yékini dix jours nga dem États-Unis cent cinquante kilo ah li nga def bi lasper lasper boo ko jëndee juróomi dërëm ñu jaay la meetar ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bàyyi muy dellu ngay xëcc di bàyyi bu yàggee di nga xëcc di dellu du Balla Gaye du problème mu gàllaaj du problème mu bëri baa nga fa du problème mu yooyu xam nga lan mooy problème am. muscle bi moo laase moo bàyyi. diggante cinq ans yi cinq gis nga gémmin bu waxul dëgg rek day fen cinq ans ñu génn nii Balla li mu feree ci yaramam na soixante millions fee muy dem Paris ne xam lu mu fay liggéey loolu mooy dégressif dégressif lañ koy defal comme yaram bu mbaq ñu conservé ko mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk mu nekk glace bu glace bu bees te gis nga am na looy def yaram bis bu effet secondaire bi ñëwee la yàlla joxoon ak la nga moomoon lépp lay bore yëpp yàq bala Gaye cinq ans ngi nii benn victoire la am muy Modou Lo la fi daan xoolal te même état bi Balla Gaye yi mu sumi dem boo xoolee naq bi lang nga xool loxo yi triceps amul amul biceps amul épaule amul trapèze dóobo daa maase kiwis la nga koy xool xam ni kii des na du physique du condition du dara ba pare Balla Balla Gaye li mu jàppee Bombardier li mu jàppoon Bombardier ci moom la nekk Bombardier il est âgé de quarante cinq presque masse musculaire la da ngay xool yaram bi lépp jàmm te ji mu moom li mu war a bëri la bëre maa la daan yaa soxla damay taxaw xaar la Bombardier xanaa xamoon ne kafe ngooñ la bu jengee day këpp waaye bu taxawee rek ku dal ci koom wàcc lu leer laa lay wax ba pare Balla Gaye nooy mu ponkal moo xam yow mënoo koo yëngal nga ne ko mbot la xanaa xanaa sa doom sax doo ko wax kaayu mbot la. mbot moom da koo téléphoné. ay mbot ma daa ñorut. kaayu mbot la ku ci mbot cuune nga kaayu mbot la bu la xale nga naaw moo tax da ko xalab mu naaw Youssou Ndour dajee jàpp jël la action bi ci biir géew bi la commencé dem ci bitti avertissement boobu Youssou Ndour jàpp léegi daal Balla bu bëggee baax fa mu liggéey de. ci comme nan comme nan ceer moo ko defee ci làmb dernier ceer moo ko defee ci làmb parce que gis ngeen ma ko gisee nii dynamique bi moom ma gisee booy ñaa sax bu ci duggee booy ñaa mën na koo daan Bombardier combat bi waru am ñeenti minutes. mais Bombardier dafa téye boppam gis ni Balla Gaye moo attaqué mooy def lu bari. Balla Gaye mbër boo koy songu doo ñëw tout droit ci axe am da koy zigzag sa tànk pied bi def nii di def nii ba pare di xeex daa waroon xeex ak moom gauche ba pare di ko zigzag waaye mbër kenn du ko attaqué tout droit ci axe da lay boobu man pour man. xeex bu gaaw la waroon a xeex daw sàcc ko man bi mu taxawee rek laa leen Balla Gaye mi parewul parce que mbër mu naan wax ñaari minutes laa lay may wala mu ne une minute trente arbitre souffle muy sikki sàkka kon lam daan yëg yëgatu ko ba non non Balla Gaye man daal lu ma la mën a xamal mooy bu doon ataaya naan na lëwal naan na deuxième mu ngi ci troisième bi troisième bi daal mu commencé xor mbet waaw ah, loolu laa gis waxuma la contact sax waaye Balla Gaye dafa indiwul dara rien indiwu du physique bu baax du koofur bu baax du muscle bu baax ay galak daal indi ko yu bari moom sol na yére summi sangu siwo sangu sangu lamb du loolu lamb physique la musculation contact xeex ak calcul ak technique man loolu laa jàng waaye sangoo sangoo sangoo sangoo nga jàpp mbër di commencé appaat na juum nga. Balla Gaye nga ci fonde que li nga xamante ne tey mooy père Balla mi fi jógee yàlla ko yàlla yërëm ak baay ji ak yeneen yeneen est ce que tamit manqué ko ci làmb ji si côté li mu doon bëree ci lu bari. non non loolu ci dara. Balla Gaye bëri na six combats wala sept combats yoo xam ne xam nit ñi xamuñu ne doomu Double Less la man mën naa la compter six combats yoo xam ne Balla Gaye six victoire la tegle wala sept yoo xam ne Double Less taxawul ci géew Double Less bi ko gaa yi xamee bala Balla Gaye daam kañ da ngaa gis Double Less Balla Gaye sàmbalaw bi da gis Double Less bala Gaye Mbaye Diouf da ngaa gis Double Less kan lañ gis mujjee gis Double Less Balla Gaye commencé fay ko cinquante millions soixante millions xam nga la mooy mbër la nga daan def daaw mu jik la moom kay defaat mbër loolu la la la may ndam 2010 sëriñ nga sëriñ la daan ñaanal ngay am dam ba bala kenn xamul ñoom ngay jàpp 2022 entraînement ya nga doon def 2010 2011 2006 ngay am ndam moom ngay defaat sa xarit yi la doon jàppale ba dara doonul dara ñoom ngay àndaat. waaw gis nañ parce que ñi nga xamante ne ñu sax si géew gi parce que ba xoolee ñu Aziz Ndiaye ñoom ñoo koy sotti baree baree bari daanañ gis nag ku ci mel ne mu ngi woon ci nag mu ngi woon ci biir ci mbukaay beeg lu baree daal dafa mel ne dafa am lu bari bari dafa desoon ci combat xam nga bëri butéel bëri siwo xam la bari na si woyu mbër bi sangoo nii ci biir làmb yi du si woy gàllaaj te gaa yi xamuñu mbër mu mën làmb sëriñ bu mën làmb ak sëriñu Bayra Ndiaye sëriñu Bayra Ndiaye dafa am ak sëriñu làmb man Balla Gaye 2006 laa ko xam mu Lo 2006 ñu ngi ñu dee ak man ci benn kër problème mu Balla Gaye ak Modou Lo du problème mu dara problème mu sëriñ la ñoom ñaar boobu 40 mille lañ leen di fay ku ci ne benn tubay nga am benn yére ba ku ne dégg million waaye mbër moo nekk jikko boo xam ni mbër ñamu tàmbaleel l'an 2000 du ànd ak ñoom fi 2022. lan ngay wax Balla Gaye kanam bu ci bëgg bu koy lan la war a defaraat. il faut reculer première sauté waaw ah, kuy dem ba xamatoo fa dem da ngay si ginnaaw pour mu mën mu defar cummi kaayam mu xoolaat mu xoolaat yaramam staff bi mu defaraat ko defaraat encadrement bi ku nekk li nga xam yow moom mooy seen métier moom ko jàng. nga yam foofu. na wuti man su doon Balla Gaye lu ma doon conseillé en tant que Balla Gaye na jëli Mbaye Samb. Mbaye Samb bi ñu formé ko Balla Gaye mbay Mbaye Samb mu ngi foofu man Mbaye Samb def naa ak moom huit ans ci benn salle. mbay Samb Mbaye Tine ak Jigo bi nga xam moo yor moo yor Eumeu Sène entraîneur ñëpp sama ñoom ñëpp yar boobu ñeen dem si yàlla si yàlla na ko yàlla xare àjjana mooñ moo doon formé man ne fekk fa grand yooyu noonu ak jimboor yi man yàgg naa ci biir gone yi biir grand yi mën su Diop mii damaa taxaw ba tàyyi muy jàngale bëri may xool. 95 ba 2022 maa ngi ci sport nit xamu fi lu ma xamul waaye nag noo sens la. mais booy dafa am lu leen réer ci Bombardier ngaaka lañ ko jàpp parce que Yékini waxoon na ko nee na euh, Balla jël Bombardier euh, Bécaye ne ko lan moo tax mu ne dañ ko jàppee ngaaka ta du ngaaka parce que bëri Balla Bombardier laaj na doole ju bari laaj na mystique bu baree baree bari. doole di ko daan. commentaire naa ko benn fi benn ci site bi nekk ci Instagram bi ñu naan ko suñu làmb. Balla Gaye naan ko boo xeexee ma duma la soo bëree ma daan la ma ma bind ne Balla Gaye boo bëggee ko napp demal nga napp Mouhamed Sakho sa doom. <laughs> Bombardier kenn du ko napp du ay dóoru koy daan du ay doolee koy daan Bombardier nagu mbuur la xel moo koy daan te Bombardier combat yi ñu ko daan yëpp moo daan boppam parce que ponkal bu jógee day woyof ay Bombardier bu naagoo rek daagu taxaw suuli tànkam da lay dóor ba da dóor ba rey la Balla Gaye innocent la moom si combat bii nii yi mu jàppee Bombardier Bombardier ku wayut la benn dof la benn ngaaka la xamul dara li ko Bombardier indil dafa bett Balla Gaye parce que ñëpp dañoo jàpp ne Bombardier da nga koy cuq ci combat bi rek mu jireeku Bombardier ñëw suul na rek taxaw samp ay poto Balla Gaye mu suulu Balla Gaye day te combat bi nii combat MMA bu Bombardier mm. moo defar combat bi. waaw parce que combat ba Bombardier ak ak tubaab bi MMA bi. Mm-hmm. waaj da ko appel gauche. Bombardier tëb sànni crochet gauche droite. waaj def recul. Mm-hmm. aspiré ko remise ko mu wàcc. xam nga arrêt gauche. Mm-hmm. kenn du ko dóor ku taxaw. lu wax arrêt mooy lan olof. mooy taxawal kon ko ñëwul ko ko jóoree arrêt gauche mooy kuy mam di ñëw da ngay aspirer mbër mi da nga koy cokkaas bu ne bërit nga ne ko ko tàkk mu mu feree ne la tubaab bi def da ko boom Bombardier mam sànni gauche sànni droite waa ji def recul aspirer ko dër ko droite bàyyi ko mu wàcc. est-ce que Balla ci loolu. Balla Gaye nag loolu la gis Bombardier ñëw taxaw ñëw indi tekk bi. Mm-hmm. tekk boobu nag moo yàq moo yàqal ki waaye Balla Gaye combat bi innocent la ci maanaam commune dafa topp communication bi trop jàpp na ne waa pataas bu tëb pataas bu nëb la. wax na wax wax Bombardier nee na ko sakkanal si énergie man duma ma dawal góor ba ma du ma réeral góor waaye Balla Gaye dégluwul après lay comprendre dafa am sens sax am na fu ko waaj a duuree ku ras doot mu jéng waajee xool waaye bu ko dolli mu mu këpp. parce que mais Bombardier attaque amul benn dafa téye boppam rek ci combat bi. déedéet dañ koy man dañ laa fay fay ma Bombardier moo daan Balla Gaye Balla moo bëgg revanche ñëpp xam nañu ne Bombardier mii bu yëngoo mooy daan boppam Bombardier daa war a taxaw yooyu xale Bombardier paa yaa communiqué ne bu xeexee di ko duma su bëree di ko daan demal bëre duma duma ko daan ko. waaye yëngal loo mënta lu yëngal loo attunu day daal day jeexal doole <laughs> te Bombardier neexul yëngal yàlla moo bind nit ñi te yemuñu xam nga tey sport ni xar mel xar xar ci dëkk bi noonu la nit ñi mel mbër di jaam xam ne ay pël-pël lañu ñi ay talaa biir ñii ay laadum ñii ay baali baali parce que doole mu ngi ci yàq yi waa kër Double Less yàlla bind leen ñu nekk ay mbër yoo xam ne dañoo waraa am biir am taat am lex déedéet Balla Gaye dafa yàkkamti àdduna dafa lekk li mu war a lekk ñetti fan fàtte na lundi dimanche ba bi mu commencé dem États-Unis di nga ngandee la commencé dugal boobam ci kàmb parce que boobu senegal ñoom bu ñu gis luy dem ñu kar ko déedéet da lay bàyyi ngay tëjëx tëjëx rek parce que comme que yaa ngi am victoire rek duñ gis a defu bu defet commencé ñëw na ku ne di wax waaye man toogoon naa géej yooyu may leen seen mbër mii jamono gi ñëw bu deewut dana fajoo ay millions parce que fi ma ko teg mooy dix jours cinquante kilos